li nga wax dëgg la duma ko dindi rafetul effectivement mënoon naa ko bañ a def. Mhm. effectivement mais nit ku ne nit la te lu ne danga koy xool ci bu doon yow ndey ki ne bañalu ma ko dara ñàkk koo bañal dara moo tax li dal ma tey mais tamit nit bu ngeen nekkee ki ne xam na famille Kiné xam na jikkoy nijaayam te yow xam nga ko te chaque jour nga wax ko guddi ak bëccëg. dëgg xam nga jikkoom. Mhm. te maa ngi dëkk ak moom ci kër gi. dëgg ma ko dara. te fu mu jógee bu amee paaka jam ko sama ginnaaw kon tey ji bu ma jëlee xaalis bu toll noonu ma def ko ndax Kiné parce que man xaw ma nijaayam. ci ne saa yu ñëwee ma ne ko kat laajal ma lii mu may dawloo di ma xëcc ak naan ma wax naa ko ko bu amee dina la jox ba tey lii dal ma mu dolli ci di ma saaga ay ndey di ma wax lu ne di mu tëdd hôpital bee dara dalu ko may fay sama xaalis xam loolu lépp mu dellusi su fi ànd ak Chacha ànd ak nijaayam nee nañu dañuy ñëw maanaam naa leen fay xaalis cinq cent mille quoi walla ki ne dem toog seen kër parce que dama ko doon dóor et yaramam day metti naa leen jox ndàmpaay cinq cent mille francs nday nit ku ne nit euh. ma xam ni nag ki ne sëy ko jóg parce que bu ko taxoon jóg du déglu ñii bañ koy indi naan léegi man naa joxe cinq cent mille ndàmpaay wala ñoom dinañ xam nu ñu def man leen nag comme que cinq cent mille ngeen bëgg dinaa leen def lu raw cinq cent mille may ko baat Ndey, bu ma nekkoon sa mag, sa place, lan ngay def yow? Ah, L'instant, li nga wax yëpp dëgg la. Ndax bu doon man moom li nga li nga def, lu ko raw laay def, bu doon man mii la. Waaye nag, ah, fàtt ki ne, moom donc la man balaa meew ma kenn, nag sama nijaay ak Chacha ñoo yam ñoom ñaar kiif kiif. Kuy bànn ñoom lay jàppale.